للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد يعينني على الثواب سمد بجاه خير الخلق نحم الجيد rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin al-makiin wa ala aalihi wa asxaabihi wa xayri xadiimihi zawi ridwaani wa tamkiin bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu jiitalee sant suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi dellu di salaat suñu jaayante ak suñu cofeel ci mawlaana al abdul xadim di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci GMT TV di li nga xam ne mooy télévision grande mosquée bu Touba euh, di jiital nag ci nuyoo bi ak ziyaar bi kilifa gu mag gi nga xam ne moo toogee jataayu Cheikhul Xadim di Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér mu àggale ay yéeneem ak ay naalam te lépp ñu ànd ko moom di ko ñaanal mboolem kilifay diine yépp ak bokki jullit yépp bokk yi nag tey jii ñu fas yéene tàmbali liggéey boo xam ne dafa dafa jëm ci fàttaliku ak jàngat li nga xam ne moo di jaar jaari suñu yaakaar Cheikhul Khadim muy émission boo xam ne waa daayira muqaddamatul xidma eh, ànd ak GMT TV te mooy grande mosquée tubaab bi ma tudd léegi ñoo koy amal tudde ko xayaatu Cheikhil Xadim te mooy dunduk Sëriñ Touba ñu fas yéene ko door tey alhamdulillahi taala bi awni di ñaan suñu borom defal ñu ci tawfiq ba li ñu ci jublu ñu am ko ci ba am ci la kawe njot te jubluwaay bi lu dara lu dul rek xam ne eh, dunduk Cheikhul Xadim dunduk Sëriñ Tuba dafa mat a xamle dafa mat a leeral dafa mat a jàngale ndax sëriñ bi léppam dafay njariñ yàlla yit jagleel ko dund goo xam ne defal na ko ci ci ay mayam ak ay tawfiqam loo xam ne tax na dund googu di dund goo xam ne man moom ci boppam wax na ne mësee su ko gisal kenn wala boog def def ko gisal kenn ci liy ñëw ci ci ci kanam ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam ak sahabatu rasul yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ndax nee na sax gis nga sàmmoonte gi muy sàmmonteeg teggi ndigam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na ba ba mu waxee loola lam ca teg mooy dund gi yépp dafa nekk kiimaan mujiza ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon lépp du ko delloowaat ci moom xasdu xayaatan laa turaa li gayri mucjizatan baanat li usni xayri kon dundam googu nga xam ne mucjiza la kiimaan la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte dafa yéex a ñëw kiimaan gu a ñëw la dund googu lañu fas yéene insha allah taala ànd ak yéen di ko jàngat ci ay émission yoo xam ne ñu ngi ko tuddee xayaatu Cheikhul Xadim te mooy dund dund ak Serigne Touba ñu kon ci biir loolu dana ñu indi li nga xam ne mooy ay cosaanam moom sëriñ bi ndax booy waxtaani ku baax bala ngaa ñëw ci dëgg-dëgg ay jaar-jaaram war ngaa xamle fi nga xam ne fi la cosaanoo cosaan dafa am solo lool ci mbir mu mën a doon rawatina ci dundug nitu yàlla <clears throat> nit ku baax koo xam ne eh, des ko war a roy te bokk na ci liñ jublu ci eh, di lu siwaa dundug sëriñ bi mooy ñu mën koo xam ñu mën a xam ci moom sëriñ bi ci ak dundam luy tax ñu gën koo bëgg te buñ ko gënee bëgg di ko gën a roy di ko gën a xeñtu loolu moo taxoon sëriñ Moussa Ka cee wala falu eh, sëriñ Massamba Mbacké ba mu waxoon ne ngir gaa yu baax yi xamle leen te woy leen dana waral seeni saxaaba roy leen kon roy gi bokk na ci jubluwaay bi loolu nag mënee su koo mënee su koo xam mënee su koo def te xamoo xamoo ko moo tax gis ngeen sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ngi suñu borom diggalee ñu roy ko eh, dafa wëlbatiku jàngale ak dundam jàngale ko ci wax jàngale ko ci jëf jàngale ko ci jikko jàngale ko ci melo ba kutubu siira yi ñuy jàng di ko nettali yépp euh, ku ko ku ko yër wala ku ci delluwaat wala nga diglu ñu nettali ko da nga xam kan mooy sallallahu alayhi wa sallam da nga xamit noo koy royee kon euh, Cheikhul Khadim itam bu ngeen gisee mag ñi daan nettali ci moom boroom xam-xam yi daje woon ak moom jamono te am luñ xamoon ci moom itam am luñ bind ci moom boo demee ci ku mel ne doomam ju baax ji Cheikh Cheikh Mouhamadul al Bachir eh, ci al minan wala boog minanul baaqil qadim nga xam ne noonu ko naaru gànnaar ba waxee woon ne bu dul woon ak boobu mën naa am lu bari <coughs> duñ ko xam ci dunduk sëriñ bi nii nga xamee ne téere bi ñuy wax ashifa eh, fi maarifati xuquqil Mustafa bu al qaadi Iyaad moom itam bu dul woon ak moom mën naa am lu bari ci siiratu Mustafa sallallahu alayhi wa du du feeñ lawlaahu maa urifa maa urifa xadimul Mustafa mooy te mooy li mu wax rek ne bu budul woon ak maanaam tiir bi di minan kon duñu xam euh, li nga xam ne waaw waaw ndax dafa xam ne lawlaahu maa urifa alxadimu kama shifa lawlaahu maa urifa euh, lawlaahu maa urifa annabiyu almustafa maanaam ñi nga xamee ne shifa moo tax euh, téere bi shifa moo tax ñu xam sallallahu alayhi wa sallam noonu itam la minan taxee ñu xam Cheikhul Khadim bu ko defee bu ñu waxtaanee ay cosaanam waxtaanee ak ganeem jamono waxtaane itam la ci aju ci gane jamono ga ak fam ko defee waxtaanee itam li nga xam ne moo di eh, am njàngam eh, ab yaram eh, ba ni nga xamee ne noonu la taxawale yoonu murid wi ak ci yan cislaay la taxawal yoonu murid fa mu jaar fa yoon wi jaar lam jànkoonteel ci ay jafe-jafe ak maanaam jamono yi muy woote jamono jooju lan la woon lan moo fa siiwoon lan lañ doon dund ci réew mi yooyu yëpp ñu ñu ñu ñu xuus ci waaye tudd itam fu ñu ci toll lu mu fa bind lu mu fa taalif ñu waxtaani ko ngir mu gën a doon loo xam ne des na ko mën a jariñoo ci wàllu xam-xam mën ko jëriñoo ci wàllu gëstu tukki yi nga xam ne def na ko itam ci eh, ak nekkam tàmbulee ci tukki bi bi nga xam ne moo ci njëkk mooy bi mu génnee réew mi dem Gabon gi ak tukki yi mu def sax ci jéeri ji tukki gànnaar tukki ak yeneen dégg nga résidence servoir yi mu def lu mel ne li mu def ceeyeen ak ba ni mu ñëwee njaareem yooyu ci aju yëpp incha allahu taala eh, des na ko waxtaane bu ko defee kon mm, ci mm, eh, maanaam numéro bu njëkk bii nga xam ne ci la ñuy tàmbali tey dañuy indi rek eh, aslëf ci li nga xam ne mooy ay cosaanam moom Cheikhul Khadim nga xam ne bu ñu doon wax ne kan mooy sëriñ bi ci wàllu askan lan lañ ciy tontu su boobaa dañuy wax ne Cheikhul Khadim moom turam li doon tudd cosaan bi mooy Ahmadou Bamba Ahmadou mooy tur wi Bamba ji dañ ko ci askanale ndax eh, ki nga xam ne moom lañu ko tudde eh, dëkk ba nga xam ne fa la dëkk sanc ko nekkoon fa mooy dëkk bu ñuy wax bàmba ci Saalum waaye moom itam turam Ahmadou la Amadou Sall moom lañ ko tuddee mu doonoon koo xam ne ni ñu ko xamee sëriñ Mor Anta Sali dafa jànge ci moom euh, lu bari te loote bokkoon na ci aada yi euh, ñi nga xam ne ci yooye jamono euh, ay taalibe lañ jànge ci sëb sëriñ bokkoon na ci seeni aada wala yàlla mayee njaboot boo ci amee doom ju góor nga tudde ko nga tudde ko ka nga xam ne moo la jàngal ngir matal kóllëre ak delloo ko itam njukkal walu moo tax sëriñ bi bi mu amee euh, doo bi bi bi mu feeñee woy juram tudde ko sëriñ Ahmadu Sàll mi nga xam ne mi ngi dëkk dëkk bu ñuy wax moo di euh, fekkoon na magam ju baax gi sëñ Moor Jaara sëñ Moorum Soxna Jaara feeñ mu tudde ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a siiw euh, kon sëriñ bi turam moo loolu moo doon turu cosaan wi moom moomu nag di Cheikhul Xadim nga xam ne tur yi yooyu yooyu ñu koy tuddee yëpp Eh, am na ci yoo xam ne yu yu mu yu mu tànnal boppam la am ci yoo xam ne suñu borom moo ko tànnal am ci yoo xam ne ay ay daraja la ak i grade yoo xam ne dakoo takk ginnaaw bi lu mel ne al abdul xadim ak eh, ak lu mel ne abdullahi ak xadim rasulillah yooyu mu wax yëpp yooyu ay grade la yoo xam ne dafa liggéey ginnaaw bi ba am ko yooyu incha allah danañ ci ñëw ca émission yi yi nga xam ne mooy ñëw ci kanam waaye turu saan wi daal moo doon eh, ahmadu ahmadu bamba way juram wu góor di sëriñ Mor Anta Sali sëriñ di doomi maam Balla Aysa maam Habibullah ñu koy wax maam Balla Aysa maam Balla Aysa moomu mooy caatum maam Maharam kon maam Maharam mooy way juru maam Balla Aysa di ñaareelu maami sëriñ bu mag bi maam Maharam moomu nag xam ngeen ne wax nañ ne Cheikh Mahamadul Fadal daana wax ne maharam day mooy adnaani askan wi mooy adnaani euh, askanu Mbàkke euh, adnaan xam nañ ni mooy maami yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne bu ñuy lim ak càllaleem bu ñu ca masaana àgg moom sallallahu alayhi wa day daa daawul nangu sax nag ñaare ku weesu adnaan daana wax naan min hahuna kaziba an na sallallahu alayhi wa sallam daana ko wax di wax ne li ko dale ci adnaan nag jëm kaw moom lañ cee wax lu ci bare bari du lu wér wala boog li ci ñiy gëstu ci wàllu askan lañ ci xam bariwut euh, maam Mahar moomu nag euh, moom mooy ki nga xam ne moo sanc Mbàkke Bawol loolu danañ ci ñëw incha allah bu ñëwee ci euh, fi sëriñ bi feeñee jamono waaye maharam moomu maanaam turam dëgg-dëgg Muhammad la Muhammadul Kabir sëñ Madi Lamin Jóob Dagana Muhammadul Kabir la andi ni mooy turam dëgg-dëgg maharam ji wolof mooy waxe noonu dafa mel ne dafa mel ne dañoo jël benn xarab ca Muhammad ja muy miim nga daal di jël turu way juróom wu jigéen di soxna aram soxna aram ñang daal di koy laaf maanaam boole kook miim nga mu nekk maharam euh, loolu comme li naan ma fatim ma soxna ma ma nangam mm, loo nga xam ne loolu ku ne xam na ne mag ñi ci bare bari dañ leen daan dàkkental ci seeni way jur yu jigéen waaye turam dëgg-dëgg muhammadul kabir la moom maharam kon ma maharam moomu nga xam ne nag mooy way jur Maam Balla moom way juram moom itam mooy Habibullah Habibullah euh, moom it euh, di doomi Muhammadul Xayri Muhammadul Xayri moom lañuy ñuy wax Makayre dañ ko wax ma kayre xam naa loolu day mel ne xëy na tukkuloore ñoo koy soppi wala wolof ya euh, la nga xam ne mooy xayri ji ñu xaw ko soppi def ko kayre waaye ma ma Makayre mooy Muhammadul Xayri Mouhamadul Xayr moomu Saïd moo ko jur Saïd nag ku ñu wax osmaan moo ko jur osmaan mii nag ci lenn ci riwaaye yi ci lenn ci nett yi dañu wax ne mooy ki njëkk a wax wolof ci askanu Mbàkke wax nañ ne it mooy ki nga xam ne moo njëkk a euh, moo njëkk a jógee euh, ñëw Jolof ci benn ci ñaari riwaay yi nga xam ne am nañ ko fii ci askan wi euh, bu dee beneen riwaay bi ci des day wax ne seen maam ju ñuy wax mayoro mayoro mooy ki njëkk a wax wolof te mooy ki nga xam ne it moo gàddaaye woon dëkk bu ñuy wax baabaabe baabaabe eh, ca Fuuta ñëw ñëw jolof am na sax bayit wu siiw woo xam ne eh, dañuy wax ne moom moo ko waxoon bi muy jógee baabaabe di ñëw jolof mu ne haajartu baabaabe wa fiiha baqiyat aaliqatan ruuxi madama ummirat mel na day wane rek ñi nga xamee ne noonu la soppee gox boobu mu jógee ak ni ci xelam di demee ak xolam na mu fa dese muy wax ne gàddaaye naa baabaabe waaye sama ru moom ma nga fa des di aju ci dëkk boobu di ko sopp fii ak ruu gi mi ngi dund fii ak ñu ngi koy dundal euh, kon ñaari riwaay yépp am na ci ci ci ci maami sëriñ bi ñii ne Ousmane mooy ci gàddaaye woon Fuuta ñëw Jolof te moo njëkk a wax wolof ñeneen ñi wax ne ku ñuy wax mayoro mooy ki nga xam ne moom moo gàddaaye woon baa baabe googu ñëw jolof ba ni nga xamee ne noonu la euh, noon noonu la fa amee ak njaboot ba ñu feeñe fa jamono am ñu ñu fa feeñe jamono euh, boo demee ci irwa ci irwa narim sëñ Madu Lamin mi ngi wax ne askan wii di askanu Mbàkke siiw na ne ñoom ay surafaa u lañ mu ne ay shérif lañ mu joxe ci sax benn firnde mu ne eh, am na kenn ci ñi nga xam ne ay bokki taalibeem lañ muy ku ñu xam di boroom xam-xam di eh, sëñ Maxtaar Binta nee wax na ko ne ko am na bis ñu toog fi sëriñ bi di waxtaan ak moom ba tudd genn gàdd goo xam ne ay naari gànnaar la ñu nekk ci Mauritanie nee na sëriñ bi daal di ne eh, xanaa xamu leen ne ñooñu suñuy ñooy suñuy doomi bàyyi tëx ñooñu ñooy suñuy doomi bàyyi tax ñooñu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Madlamin Jóob Dagana am na gàdd gum gum tudd ci téere bi ci irwa ñuy ali moo di nal la aali moo di nalla ñu di ñoo xam ne ñu am cosaan lañ ñu am taarix lañ ci diggante eh, gànnaar ak fuuta rawatina ci wàllu dex gi gëstu seen taarix te ñooñu da nañ ci xam lu bari te ñooñu seenu eh, doon ay shérif lu lu lu siiw la loolu kon mooy wàllug jur wu góor wi donte mënees na cee yaatal lu bari ndax bu ñëwee ci wàllug euh, jur wu jigéenu Sëñ Mor Anta Sali itam xam nañ ne soxna Anta Sali mi nga xam ne mooy waajuram euh, féete fi ñuy wax njakkan boo ko toppee it mën naa dem ba sori lool bu ñëwee ci wàllug euh, waajuram wu jigéen moom Cheikhul Khadim ba tey ci cosaan yi soxna su baax su tedd suñuy wax soxna Mariama Bousso te gën a siiw ci jaaratullah mooy woy juróom wu jigéen soxna jaara moomu soxna Mariama moomu euh, di doomi ku ñuy wax ma buso Awa Mbaay moom itam Muhammad mooy turam comme ni ma ko waxee ci maharam ji rek euh, noonu la demee ma Bousso Awa Mbaay mooy way juróom ma Bousso Awa Mbaay moomu ku ñuy wax ma Tabara moom itam Muhammad la tudd waaye dañ leen di delloowaat rek seeni way jur yu jigéen ma Tabara mooy way juróom matabara moomu ku ñuy wax xamaat mooy way juram xamaat moomu nag ku ñuy wax ali mooy way juram ali yu moomu euh, wax nañu ne mooy ki nga xam ne ci la euh, ñi sant buso te tasaaroo ci gox yu fasantikoo ci réew mi ci lañ cosaanoo euh, ndax mooy bàyyi xammaat di bàyyi siidi di bàyyi bookar moo ñuy wax bookar ali ak siidi ali ak xamaat ali Euh, moo tax ñu wax ne mboolem ñi nga xam ne ñoo sant Bousso te féete ci bawal wàllu bawal gi ak jolof euh, ñooñu xamaat mii mooy seen maam euh, bu dee ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu saalum gi ñooñu bookar dañu wax ne mooy seen maam bu diggante ndar ak tëngéej nag ñi fa sant Bousso ñooñu Sidi Ali dañu wax ne mooy seen maam loolu moom itam lu siiw la waaye xamaat mii nga xam ne nag moom laa wax ne moom ci la ñu féete ci wàllu bawal gi diggante Mbàkke ak ba ci sax Jolof googu ci moom lañ sëtoo eh, nga xam ne mooy nga xam ne moo jur ma tabara ma tabara jur ma buso ma buso jur soxna jaara ak ñim bokkal di sëñ buso beeg soxna mati buso soxna xujja njom buso ñooñu ñoo bokk ma buso awa mbaay eh, ak seen waajur wu jigéen dinaa ci ñëw léegi di soxna asawalo waaye xamaat moom yi nag la ñu wax ne moom itam mooy ki njëkk a fuuta ñëw ñëw jolof bi muy ñëw itam mi ngi bàyyi ko dëkk bu ñuy wax gollare gollare euh, ba ba léegi maanaam fu ñu xam la euh, ca ci ci fuuta bi mu ñëwee doon seet mbokkam moo xam ne mbokkam mu réer la ñenn ñi wax ne mi ngi tuddoon bookar xëy na mën naa muy bookar mi nga xam ne moom laa tuddoon léegi ne mooy maam yi ñii sant bu soti féete Saalum euh, am na ñu wax ne bookar moom sëñ maanaam ko mel ne sëñ Musaa moom Euh, bokkat la tudd waaye beneen riwaaye sëñ Modou Bousso moom sëñ Mbàkke Bousso ci bi muy xam xamle dunduk sëñ Mbàkke Bousso waaye juróom bu baax woo dafa wax ne Ousmane ibnu Ali moom moo réeroon jëmoon ci wàlluk saalum googu xamaat euh, mi di mbokkam di ko seet bi mu ñëwee ba foofu nag bi mu ñëwee ba Jolof nag mu euh, wàcc fa doon dallu waaye mu am ñu ko fa seetlu ci ñi nga xam ne ñoo jege boor bi di ay rajam seetlu ci moom itam ay kiimaan ak xar baax ñëw wax ko boor bi buur bi woolu ko bi mu ñëwee laaj ko luy tànkam ci lu lu gàtt rek mu xamal ko ko mu xaw koo mel ne lu koy téye ba mujj mu am fa soxna ci ñooñu ñuy euh, dégg sant siise muy waa xobi siise yooyu ba yàlla dogal euh, mu far toog am fa njaboot ba euh, lu bari ci njaboot gi ci ay doomam foofa lañ fekk baax foofa lañ juddoo soxna jaara mi sax xam ngeen ne ñeen ngi dañu wax ne goldara la feeñe jamono waaye li gën a siiw li gën a not te gën a dëgër mooy ne mbusoo bi gi ci jolof la gane jamono ak lu baree bari ci Euh, ci ci ci ci askan wi kon xamaat euh, mooy ki njëkk a euh, wàcc jolof jóge fuuta doon gëstu mbokkam moo xam ne dafa réeroon jëm ci wàlluk saalum gi askanu Buso bi wi itam ku ko ku ko toppit moom it mën naa dem ba ci Sayyiduna Hasan Asibt comme ni ñu ko waxee woon ci mbàkke mbàkke yi ni ñoom it ay surafaw lañ sëñ sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana indi na ko ci Irwa wax na ñoom seen maanaam seenu saraf itam lu lu wér la wala lu siiw la euh, waaye mu ne mu ne sax bu dul woo nag bu buñ ci amul woon benn tegtal sax bu dut ni ñu leen xamee ci ay jikko yu rafet ci lewet ci yaatu ci bañ lu bon ci seexlu lu bon ak bëgg lu baax ak sawar ci aw yiw def def lu baax neen loolu rek doy na sëkk tegtal ci ne ñoom ñaari askan yëpp muy askanu Mbàkke ak mu Mbusoobe euh, ñu sell lañ ñu baax lañu euh, te Euh, sëñ Mbàkke Bousso ci an nasabul mbusu bi wax na ci ne li dalee ci euh, ci xamaad mii wala li nga xam ne moo dalee ci maami sëriñ bi ci wàllu ndeyam ba ba ngay dem ci sayiduna Abdul Xaadir Jilaani moo nee na moom càllale googu moom seet nañ ko ba wérlu ko ba mu wóor nee na boo demee dëkk bu ñuy wax gollare googu mu tuddoon léegi daanaka gone sax ak ñëpp dañ koo tari dañ koo mokkal ba di ko tari ñoom ñëpp ko mokkal te mu ne nag diggante Cheikh Abdul Xaadir Jilaani ba ci sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Fatima ne loolu moom lu ñu xam la lu ñu mokkal la kon yooyu yëpp day firndeel rek ne eh, ñoom ay dégg nga surafaa u lañ donte nag sëriñ moom daawut doxee du di wane ak saraf ndax moom lam jàppoon ne mooy saraf dëgg-dëgg te dana feeñ ci waxtaan yi bu ñëwee ci kanam mooy kon saraful axlaaq waaye du sarafu al ansaab eh, wala yu mel noonu eh, donte nag am na ci solo lool soxna jaar mii nag wax naa la kon way juróom góor fi mu bokk muy ci wàllu musóobe gi waaye soxna jaar itam nag way juróom jigéen mooy soxna asta waalo mbakke soxna asta waalo mbakke way juróom bu góor mooy Amadou soxna Buso Ahmadou soxna Buso mi nga xam ne maam maharam mi ma waxoon ne mooy àddinaanu askan wi suñ fa la ko waxoon mooy woy juróom maam maharam moo jur Amadou soxna Buso mu jur soxna asta waalo mu jur soxna jaara eh, way juróom bu jigéen moom soxna asta mooy ndumbe daanu ñang di doomi daaru sànqe moom it mën ngaa topp càlla léegi muy dem ba sori lool ñi ñi xamu askan te di ko lim danañ koy lim daanaka ba mu àgg ci euh, dégg nga booru Manding boo xam ne bu ñu xam la bu bu bu siiw la euh, dégg nga ci réew mi ak ci li wër réew mi euh, ñoom kon muy askan woo xam ne meen mi ñu bokk moom la ñuy wax meenum gonjox meenum gonjox sëñ bi meenum gonjox la te meen lu am solo la ndax am na yu bari yuñ ci xamee am na yu bari yuñ ci yuñ ci yuñ ci natte ci wàllu jikko ci wàllu ci wàllu melo ci wàllu doxin ci wàllu lépp kon daal lii ci tënk euh, donte manoon naa gën a gën a yaatu mooy euh, lenn ci cosaani ku baax ki Cheikhul Khadim ci wàllu euh, ay way-juram muy way-jur bu góor wi Serigne Mbacke Mor Anta Sali waaye itam ci wàllu way-juram wu jigéen di soxna jaaratullahi Mariama Bousso muy kon ñaari askan yi askanu Mbacke ak askanu mbusoobe bi nga xam ne wax na nee suñ boroom moom moo ko ko tànnal nekkul ne moom moo ko tànnal boppam léeg-léeg sax ñu waxee ko noonu dëgg la man moom suñ mën na koo tànn waaye it wax ne suñ suñ boroom moo ko tànnalu askan ni nga xamee ne noonu la ko léppam lépp ko ko tànnal waaye moo ko tànnal askan wi nga xam ne ci la war a feeñ ca askan wu baax it euh, sëñ bay jaxate daana wax ne ab ab ab maanaam ab yóbbal la wala bu ñu ko doon wax ci wolof mën nañ ne tos la tos la mooy euh, boo bëggee def saw jiwu te bëgg jiwu meññi te am njariñ te rafet te neex da nga koy wutal tos tos jooju nag mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, aw askan wu baax mooy askan wu sell moo tax alxuraan wax ne wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi walladi xabusa la yaxruju illa nakida nee na suuf su teey ñu ji ci nji mu baax bu génnee day baax ci ndigalal yàlla ci kàttanu yàlla waaye nag safaan ba it mooy safaan ba rek Euh, lii mooy li nga xam ne moom lañ leen waajaloon tey jii ci jataay bu njëkk bi ci émission bii nga xam ne mooy xayaatu euh, Cheikh al Xadim te mooy dunduk euh, ku baax ki maanaam Serigne Touba ni ñu ko waxee rek incha allah ci émission yi ñëw danañu gën a xuus nag ci li nga xam ne mooy moo di ay jaar-jaaram fan la ganee jamono ak kañ la ganee jamono fan la jànge ñen ñoo ko jàngal Euh, lu aju ci bi yaram mm, ba ci dëkk yi nga xam ne jot na caa jaar lu jiitu muy euh, taxawal yoonu murit ak kañ la taxawal yoonu murit yan cislaay la ko euh, taxawale ci yan cislaay la ko taxawale ak bi mu ko taxawale ba noppi lan moo ci xew dëkk yi mu sanc yëpp danañ ci ñëw insha allahu taala tukki yi mu tukki itam ni ñu ko waxee woon danañ ci ñëw ak dundam lépp rek ay taalifam ak mag ñi mu defar yooyu yëpp lenn lu ci nekk rek incha allah danañ ci ñëw waxtaan ci ndax mu doon njariñ loo xam ne dana matale matale goo xam ne day yaatu lool ndax ndax loolu rek mooy kon maanaam jubluwaay bi bu defee kon ñoo ngi tënk foofu suñu kàddu di leen sant bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox kon daje incha allahu taala ci jataay yi di ñëw jataay la boo xam ne weer wu nekk incha allahu danañ ko ci amal par weer lay am bu ko defee kon bii nag moo nekkoon bu njëkk bi nag ñu tàmbali ko ànd ko at mu bees mi incha allah di ñaan yàlla nag mooy ñu kattan ak tal ak fekke ba ni ñu ko bëgg a defee ñu defee ko noonu te mu doon njariñ loo xam ne ñun ñu koy def dinañ ci ñu koy teewlu yëpp dinañ ci jariñu mu doon kon weer nekk incha allah ñu defal leen jotaay boo xam ne day jëm ci xayaatu Cheikhul Khadim muy dund ak Serigne ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox da di leen kon jox maanaam daje ci weer wi di ñëw bu neex yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد يعينني على الثواب سمد بجاه خير الخلق نحم الجيد